ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar net daara du la rëcc ci réew mi. Euh, Jotna TV maa ngi leen doog a seetaan ah c'est des gars que je connais c'est des gars qui sont d'ici des sénégalais ay jàmbaar fàq tëdd ñoom Lamine Niang et des gens que je connais que j'ai côtoyé dëkk ñoom bokk ñoom xeex ñu nekk Canada organiser wu créer seen benn télé. Jomaay bugg def consommer local. bëggul jël dara mu jël leen mais vraiment c'est nul ça fait chier non non non non c'est zéro c'est zéro c'est zéro c'est zéro ñun président la ñu fal quoi on a bravé ciel et terre dañu xeex quoi dañu sonn dafa am ñu dee dafa am ñu xare un président un président la ñu fal Diomaye Faye c'est un président maintenant on doit gérer sa communication on doit gérer son habillement c'est pas benn Mollah Morgun bu c'est un président yàlla moo ko fal sénégalais yi xeex fal ko donc fii amuñu amatuñ lu ñuy wut lu neex nit tu as la qualité tu l'as pas non dañ lay tegee ne le quoi parce que Diomaye Faye sa page c'est le Sénégal c'est le monde qui le regarde man seetaanuma Walf parce que awma Walf mais bu fekkee page Diomaye Faye la man dama koy seetaan Diomaye Faye page moo gën bu foor bu Walf parce que monde bi ñoo koy seetaan maintenant c'est tout le monde qui regarde c'est pas vous seulement les Sénégalais qui regardent c'est le c'est le monde qui regarde maintenant c'est le yeneen dëkk ñooy seetaan léegi naan kii mooy président au Sénégal il le mérite da ko liggéey am na compétence yi donc fu mu nekk nii image yu ñu war a génn dafa war a nekk ay image day compter image day compter ku la ne image du compte day kàcc président dañuy defar seen image président yi dañuy defar seen image chargé de comme bi nul man maa ko wax chargé de comme nul yéen xam ngeen ma ci xeex xam ngeen ni nit mënuma arrêté xam ngeen ni on n'arrête pas la mer avec ses bras da ngay ànd ak man rek mënoo ko dama lay basculer jàll kenn mënuma arrêté man xam naa li ma xeex ba yegg si fii dama ne il faut du professionnalisme les di ko wax waa jot na TV il faut du professionnalisme si vous l'avez pas poussé leen ñu wëri ku professionnel il faut du professionnalisme waxuma si speech bi speech bi critiqué wu ma parce que man pour man yi n'a pas eu le temps de le préparer discours beeg yooyu loolu garaawul parce que dafa joge ci campagne dafa sonn euh, démb rek la résultat yi tey loolu speech bi waxuma ko man je parle ci ñu yore woon visuel bi ñu yore woon kàddu gi foofu laay wax fu ko dugal lëndëm na mi ngi ñuul kukk taxawee na la mel ni benn yoo ci biir lëndëm na lumière yi zéro abima zéro wax pour ñu dégg sax am dama mer ba kajj affaire dem sama yoon kenn dégluwu ko boo xoolee même image yi ci ci ci jomaay c'est huit mille six mille six mille huit mille un président qui parle c'est notre président nous un président qui parle page am di am ay six mille huit mille même campagne moo ëppoon donc nañ soigner l'image c'est pas sérieux oh c'est pas sérieux la bala ñu merloo quand même fu ñu jógee dafa sori te lu ñu daj dafa doy waar bala ñu merloo c'est pas sérieux ça une première sortie du président de la république des sénégalais ngeen dugal ko fu lëndëm mu nekk fële ñuul kenn mënu xame kanam gi soigné wu leen image bi seen qualité d'image nulle micro bi di dagg di dem di ñëw di dagg di mais c'est du n'importe quoi ça respectez-nous moomu leen ñu ah ragaluñ leen aussi ah seen ndey yi jur ñu ñu ah. mun mënuñu liggéey ba fii ngeen ñu bëgg a këppal yàlwaan bi dañuy mujj di saaga seen ndey léegi bu la ñu fontoo nit di rey ndey seen bopp nit di dee nit di dal li ne premier président war a génn adduna bi yëpp di ko seetaan ngeen di saboté ay ay image yu ñuul ay nit bu tuuti nekk fële ne ay micro buy dagg di dem di ñëw visuel bi zéro image bi zéro ñun duñ seen géwél ah suñ duñu ay géwél ak suñu yaay ah. di tagg seen baaxumaama maama ah. ñoo leen dàq xeex foofu suñu àdduna yëpp dañ ko xare bu la ñu fontoo soignez l'habillement ngeen génne qualité d'image bi image day jaay image day jaay adduna bi yëpp lépp luñ gën a jënd image la image day jaay xam ngeen lu ci image yenn dofu sénégale yi nekk foofu nga xam ne musuñu bougé ñu fenn goloye nan non non non espèce bi am na solo ay dof lañ bu leen leen déglu avancé wuñu bu seen xel amoon njëriñ kon Sénégal jëm na ca kanam bëri na dof yi nekk Sénégal avancé wuñu xamuñu luy image image day jaay lu bëri ci image lañ ko jaay publicité image day publicité day jaay di xool loo xam ne neexul ñu image bi tax tax ñëpp bu ko jënd image day jaay wax ji fluidité bi micro yi mais dag bay maa ngi doog a seetaan live daggu ko dem sama yoon kenn kontaanul je parle de visuel je parle d'image de de qualité sonore ba léegi waxuma ci waxu speech professionnel que je suis du ma wax ci speech parce que calculer naa ni jomaay sonn na ci campagne la jóge préparé nañ discours bi amul temps donc loolu lépp ça peut se soigner loolu grawut je critique pas ça jomaay pour cent nice dama ne jot na TV defar leen seen qualité yi wala ngeen may ñu Ousmane Sonko yàgg na def live kenn musu ko kaas ci qualité bu ngeen duggee ci affaire yi commencé yàq live bu mu doon def bu Ousmane Sonko doon def portable am sax moo gën Ousmane Sonko am na ay moyen moyen image yi nga xam ne image Ousmane Sonko day def live image yi set wecc musoo gis ku ko critiqué ñoom Bentaleb Sow ñooy nekk ci ginnaaw ay portable la ñuy yore ay caméra day set wecc kenn musul critiquer loolu Diomaye yàgg na def tournée bi kenn musu ko critiquer lan moo ñu war a dem ba premier président bi war a génn pour une première fois di wax ak le monde entier ñuy commencé di saboter ay image di ko dugal fu xat fu lëndëm mu ñuul foofu di mel ni benn yoo bu taxaw ci benn mur ñuy saboter il faut arrêter